mas waaw dama leen woon ni mhm. coronavirus bi mhm. mbaxalu lawbe koy fàcc. bu biiru xar. Mhm. saf sap nga def ci li moom. xanaa ne coronavirus bëggul li moom. coronavirus bëggul li moom ak daqaar ak kaan. bëgg ko ndax bu la jàppee moom coronavirus. da soj. da ngay yaa ngi déglu da ngay mel ni ku am enjeu te yooyu moo koy faj limon Dakar kaani gu saf sap nga def ko tim nag sa baxala law be di ca dóor di ko fas ba ñàkk tooy xib mu ànd ak ñàkk wane dem. mais est-ce que gars yi kan la non ñu ngi koy lekk am na ñoo xam dañ koy lekk rek jóg boo commencé ci sóoli rek ba maa la ko wax. non domoda bi ah ku mu neex nga domoda. xam nga place waaw mais mbaxal mee gën a moo gën a original. Mhm. Hmm, mbaxal lob bi <laughs> am na solo dama mhm. ko law ba gi bote xam nga beauté mm. dafa yàgg ci law bi law bi kenn gën a ko bëgg àddina bëgg sañse boo ñëwee ci suñuy xew dañuy concours sañse concours teint concours takkaay mm. concours yu baax mm. loolu moo tax savon bi mm-hmm. savon law ba gi beauté la kii produit France rek laay defar kii 24 saabu savon la mm-hmm. moom laa mélangé mm-hmm. duma ko togg duma ci def ay limon ay tiir ay bineegar ak ay meew ak yooyu duma ko def sama saabu naturellement rek bu mhm. ngi nii macha allah mhm. su ñëwee nga sotti sa ndox mu yëg ko mhm. ba mu nooy nepp nga diw sa kanam ah. mel ni ku koy def gommage ak sa yaram yëpp macha allah dangay leer teint bu rafet bu set wicc te lu mu fekk sa kanam daf koy dindi ñaareel ba mooy leen d'accord baa ngi nii loo bëggi beauté dafa am ñoo xam dañuy defar xeesal fii ci Sénégal vaseline bi jaay pharmacie bu foor bi mhm. ñu ko ciy bati di ko ci def buñ ko ci defee mhm. sooy diwu boo defee nii diw bi mhm. comme nii xam nga bii dafa nooy xam nga jàppoo dara boobu soo ko boo defee nii diw gi dangay ngay làmb mel ni ay sunguf yu sew ci biir wala ay sachet wala ay huile yu bëreeg kooku diw bi dafa naturel dafa nooy nepp. te boo ko diwee lait de corps la lépp fekk da yaram daf koy dindi ba set te na nga war a mel noonu ngay mel macha allah ah crème de visage baa ngi nii crème rose la ba tey ñoom ñaar bokkuñu couleur crème rose la gis nga macha allah lu mu fekk sa kanam daf koy dindi te xet gi gis nga nu mu neexee kii doo ko diwoo dend ak sa borom kër mu naan la loo diwoo daa xeeñ bokku ci. xet gi dafa neex te dafa piire te dafa léger te amul benn effet secondaire bu muy def ci nit loolu weddi gis bokk ci àdduna yëpp nga may déglu yàgg naa koo jaay samay client ñu ngi may dégg ñu ngi may gis te su ma la jaayee damay topp li ma la jaay ba xam ban résultat la am ci yow dama yor sama kan de registre ku ma jaay enregistré sa tur bind si ndax nit ñi mën na noo toog fee jënd beneen diw ñëw na faat loo ba yaa jaay diw gi te man sama mbir dama koy dama koy décortiquer ah, waaw barki dem am na koo xam ne dafa ne woon fan la ba yaa ma jaay diw nangam ak nangam ma ne ko yow noo tudd ma diw laa tudd ma jël carte de registre bi indi ordinateur bi teg mhm. ne la mooy sa numéro mu ne ma numéro nangam numéro ba rek laa njëkk a xool nekkul ci registre ma ne ko noo tudd mu ne ma diw gisuma ko man ne ko yow jaayu ma la de suma laa jaay man mhm. loolu moo tax mhm. ma jël samay matuwaay. lu baax mm-hmm. lu piire lu am solo mm-hmm. samay clients yi ñu ngi may dégg ci àddina bi ku ko utiliser mm-hmm. gis ci résultat waaye xanaa weddi gis bokku ci xool ma man ah, xool ma man ni ma mel ak ni may doxe gis ma macha allah ma jóg <laughs> ma macha allah sama tey ngi nii crème beauté de Laobé waaw <laughs> maa la ko wax. lii daal lay def ndàqum corona mhm. ndàqum corona ndàqum corona gi gi ah. daal lay def man waaw des sama marinière rek ay waay ndàqum corona ndàqum corona gi gi ah ndàqum corona ndàqum corona ah. lu bees la. lii mooy dàqum corona ndax xam nga corona gi fii lay ne boo ko nii mu dem nga dóor ko gauche dóor ko droite def ko nii xanaa senegal jëm na ca kanam lii rek la lii yow rek yaa ko mën am nii ah, noonu.